doomu Grand Yoff la Sane Douglas ak moom lañ jàkkaar lool Petit Zé moo ñu wan ginnaaw ndeysaan waaye kenn du jibi bamba si man la ay karo lay borom karo yaa ngi noonu nee naa la ku bëgg karo yu baax karo yu rafet karo yu am qualité contacté leen jibi bamba doomu Grand Yoff doomu Touba la Guy gi oh non Douglas dañ jàkkaar lool Petit Zé moo ñu woon ginnaaw waaw Petit Zé ak Douglas ndeysaan Douglas at Petit Zé ñaari yaa ngi noonu ndeysaan eh Petit Zé jam na Douglas Douglas jàppante ñaar Petit Zé Douglas Petit ngay dóor eh Petit ngay dóor Petit Zé Douglas Petit Zé ak Douglas jàppante nañ ñoom ñaar Petit Zé takk mu woy wooj faqaat na mu woy la baa du woy woy la ko baa doo woy exe eh, eh. dooral door Petit a door Douglas a ngi door Petit Zé xar ko mu bañ Petit Zé ak Douglas eh, ñaari xale ay mbërëntaan lañ lu xew lu xew lu xew ardo ardo ardo ardo ardo ardo ardo ardo am na gan temps booy ardo am na gan ardo am na gan ndeysaan doxantu leen parce que ardo amul waaw ma gën a arbitre bi waat na Petit Zé ak Douglas ndeysaan Petit Zé ak Douglas Douglas Petit Zé bañ eh Petit lim def nii lan la daa jàpp sax da daw waaye wéyut Petit Zé ak waaye Douglas sa taxawaay bi baaxul ba duñ la caxamal Douglas ak Petit Zé yaa ngay wàcc Senghor yaa ngay waaj ndeysaan dëppante nañ naax ndeysaan Brise am na ngemb ndeysaan Brise am na ngemb ñu xool day jaxabal wala waaye Douglas day bëgg a téléphoné xar jéppen ma ngay rokos dajale na ko ñu xool eh xale yaa waay Brisien ngi dóor Brisien ngi dóor fa dëgg na ko mbot mu bañ fàq na ko mu bañ da koy mbot wala waaye xale yaa ngi bëre waay war na ko ndox moom génn si laa ilaaha illallaah xale yaa ngi bëre waay eh, Petit Zé Douglas waaye xale yaa ngi bëre waay Petit Zé Douglas ndeysaan Petit Zé Douglas fàq na ko moom waaye da ko tegal la dóor na ko tàng bañ da koy kal wala waaye lamb xale waay lamb xale lamb xale ndeysaan ñaari xale yaa ngi bëri ndeysaan Petit Sèck Douglas tax na ko bu bañ taxamal mot faq na ko bu bañ eh, eh. waay waay waay li lamb la waay waay li lamb la waay li mooy lamb xale ñun bëgg nañ li waay non Douglas lu mu lal Petit Sèck ne ko laali naa ko ndeysaan est-ce que Douglas Petit Sèck du la vidé ba nga jeex mu daan la wala Petit Sèck Douglas du la vidé ba nga jeex mu daan la lépp dina leer Douglas ak Petit Sèye ndeysaan bañ na ko wut faax na bañ zongale wala waaye xale ñu xool lu xew ku porte dem jaamati ndeysaan ndeysaan booy Thiam nga war daa watee ñu jàppi ko ñëwaat Petit Zé ak Douglas Petit Zé ak Douglas ndeysaan Petit Zé ak Douglas ndeysaan fàq na ko bu dem da koy na ko ndomba ñu xool ndax danga ci génn wala ñu xool ndax danga ci génn wala ñu xool jël amagul de jël amagul de ñu xool jël amagul de ñu xool Petit Seye ak Douglas jël amagul de ah daan na ko Douglas daan na Petit Seye Douglas daan na moo cherché bëre bi moo wut bëre moo daan daan bi oh. Douglas Boy Thiam yëkkati na ko ndeysaan Douglas daan na ko jël waay Douglas daan na ko jël bu doy waay mu ngi dem sa ñaabu ndaw mu ngi dem sa ñaabu ndaw ndeysaan ñaabu ndaw la jëm dem na sa ñaabu ndaw ndeysaan